los a ti. club bi ñu ngi ko pré ñu ngi depuis depuis deux mille deux mille dix huit maa maa ko créé maa beneen collaborateur boo xam ne c'est un étudiant à la faculté de à la faculté des sciences humaines à l'université à l'université de Dakar waaw club bi nag la plupart il est constitué des jeunes étudiants et des élèves quoi. club bi moo ñu inspiré ci période de vacances yi quoi. en étant étudiant xam nga du ñu am benn activité boo xamante moom la ñuy def quoi à partir de 17h raison pour laquelle en tant que étudiant si ñu obligé créer suñu benn groupe fitness club quoi ñu ngi ko créé depuis depuis 2018 quoi maak samay quelques collaborateurs. ñu ngi ko créé fee ne au champ de course quoi champ de course lañ doon defee souvent suñu entraînement mais à cause des nawetaan loolu tax ñu délocaliser kii bi fii nii à l'Agora quoi club bi c'est payant inscription pour nga adhérer quoi donc il faut il falloir nga inscrire nga am mensualité boo xam ni c'est c'est pour pour pour pour entretenir les les tenues en même temps pour dañoo soxla ay matériel quoi bul tuuf am nañ ay bâton ak yenn ay ay ay ay tapis quoi non matériel nag pour l'instant yu si bëri amaguñ ko quoi dañuy so dañuy dañuy soog a door quoi xam nga rek yàgguguñ si affaire yi quoi te la plupart ay élève lañ ñii ay étudiants lañ ko xam nga rek. si pour nga intégrer club bi il va falloir de un nga nekk en bonne santé waaw il faut aussi nga am amoon club bi bu fekkee bëgg nga ah te en bonne forme là mën ngaa ñëw rapproché wu suñu équipe bi bu ko defee léegi ñu. ñu ñu ñu teg la suñuy condition quoi su fekkee bëgg nga adresse su fekkee condition yi ça te va léegi nga ñëw inscrire bu ko defee léegi nga commencé say entraînement quoi. sport bi nag nekkul sport boo xamante ni ñu bari xam nañ ko parce que fitness club boo xoolee fitness ñu bari am xamuñu ko lool lool. Euh, bon loolu nag euh, mooy li ma la waxoon rek parce que nit ñi xamaguñ ko kon nit ñi dañoo mën a am benn approche bi mais ñun à tout le moment ñoo ngi sensibiliser parce que boo gisee du fii rek lañ daan du fii rek lañ daan entraîner lu ma lu waxoon naa ko tout au début doon nañu entraîner fi nga xamante ni mooy centre de donc foofu daal nañ fa def yenn sensibilisation nit bu dikkee même bu dikkee ñëwul sax pour intégrer ci club bi mais daf ñoo gis rek affaire bi neex mu dikk taxaw suñuy rang donc dinañ dinañ ko invité xamal ko li nga xamante ni mooy fitness xamal ko li nga xamante ni mooy sport bi donc gën kaa gën kaa sensibiliser peut-être nag nit ñi ñoo comprendre bu baax a baax mais ñun ñoo ngi def ñoo ngi sensibiliser nit ñi pour jéem leen a comprendre xamante ni mooy fitness mel te yooyu yëpp dañoo gis ne population bi ñoo ngi jànkonteel lu bari lu mel noonu parce que fu mu toll nii Euh, boo xoolee parents yeeg euh, ñu si ñu mel population bi dañoo préoccupé li nga xamante ni mooy dépense quotidien li nga xamante ni mooy lekk naan fexe ba njaboot gi dund ak yooyu loolu lépp baax na mais boole si aussi sport daf dafay gën parce que moo lay may benn stabilité bi may la benn gudd fan bi nga bi nga mën a am ak benn maanaam benn benn benn hygiène de vie bi nga bi nga am loolu tamit aussi sport moo la ko mën a may donc di inviter la population tout entière ñu def li nga xamante ni moo di sport parce que ne serait-ce que deux fois dans la dans deux fois si semaine bi sax du la yàqal dara tey day nekk loo xamante ni c'est bénéfique may invité population bi surtout rawatina population Thiès bi ñu rejoindre li nga xamante ni mooy fitness club ñu gën leen di expliquer ñu mën a adhérer di di di entraîner tey aussi di wax parents yi aussi ñu bàyyi seen doom yi ñuy def sport bu ñu leen teg rek ci kër yi kër yi parce que fitness dafa nekk loo xamante ni c'est important sport bu noble la c'est c'est